naafila gi juróom-ñett rakka la rakka wa ca kal fatihatul kitab ben yon suratul nasr di isa ja anasallahi juróom ñaar yon alfat ñett rakka moy gi fatihatul kitab ben yon suratul nasr juróom ñaar yon julli gi nak mbokk yi amna ay ngeenel ci serigne bi tudd ci téeram bi di xawratul waxna ne kep julli julli gi bu allah rabbi des na ko bindal ku des na ko bindali tiabay ku góoral ab jam junniy jam des na ko bindali tiabay ku lel junniy nit yu xiif tey des na ko nangul jamu yalla mo xam muy ay julleem wala ay koram des na ko musali ci ay caayu àdduna ak àllaaxira yàlla yàlla may fekk aku dal wasalaamu alaykum wa rahmatullah وطارد أغيار